wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen baalu àq te baal àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu mën a nekk dellusiwaat nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amal seen sit bi ñuy wax Tanim TV Seydina moo nekk ca xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Deko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci cas bi nga xam ne moo dal Idriss Seck kenn ci njabootam ñu wax ne dafa ko jàpp liñ ko jàppe nag mooy ci wàllu cocaïne ci dorog yoo xamante ni dañ koy aaye loolu nag bala noo yëkkati sunu kàddu ñu massawu ko bu baax a baax di ñaan yàlla mu génne ko ci te walbati ab xolom ak xelam ba mu jóg ci doye di eh, jàpp naa bu fekkee moom di wax dëgg yàlla dañ koo tudde Abdullahi jaamub yàlla rek la waroon na doon waroon naa fexe ba tamit du am sikk sekk moom sekk la waaye waru ci woon a boole nag <laughs> ay noon di ko di ko di ko di ko wax ne ndax loolu wax dëgg yàlla sikk la sikk la ci nit waaye nag mbir mii nag mbir la moo xamante ni wax dëgg yàlla ku jaboot ku nekk Euh, mën na laa gane si mën na laa nuyu nit la kilifa gu baax doon wax mën naa lu ma wax muy dëgg waaye lu ma dégg dëgg la loolu loolu moom yombut kon lii mën naa nuyu ci kër gu nekk nuyu na kër yu bari yonent yàlla noo ab yonent la woon doomam ba ko sunu borom ba mu bëggee wax sunu borom kii sama doom la dana ko du sa doom du sa doom jooju lu muy tekk mooy bokku leen jikko nangulu la euh, dëgg-dëgg ku jur doom tudde ko Abdullahi am nga wax dëgg yàlla xemmamteef moo bëgg mu doon ko kon loolu ko dal ñu ngi koy massawu di ko wax nag euh, yàlla ñaare bu la jabootalee ñetti doom yi dina la ko jox ñetti doom yi doom joo xamante ni dala koo faye ak doom joo xam ne dala ko nattoo ak doom joo ne dala koo gëne loolu yàlla moo koy def doomu aadama yi tamit dañuy wax ne jikko waaye jikko kenn du ko doon jikko jikko ji ni wax xalxan euh, xulxan mooy jikko ju rafet jikko jooju euh, ñu tagge woon yonante bi jooju jikkoom na ngay entraîné ba àgg ja euh, da di doom nag bu la ko yàlla joxee dafa am yum la ci gàll mooy nga yar ko wutal ko waajur bu baax te yar ko léegi nag ñoom ñii di borom alal yi ak di boromi tur ñoom dañuy duñu yar dañuy yafal yafal nag ñun wolof yi niñ ci waxoon dana wax ne boo yafalee sam xar wala sëg jur yow lay njëkk a yu mel ni e, kenn mënu koo fanaanoo di am mbégte kenn mënu koo yendoo di am mbégte rawatina loo xamante ni dem na ba dugg ci biir xañ na jombul nag liñ ciy waxe ñun néewu nu lu am la lu am la dana wax rek ne téye nañ ko ci loolu lañ ko téye moo ko def ak defu ko yàlla mu ngi ko def waaye lu ci mën a am rek dañuy wax ci wàllu mbir mii rek ak doomu aadama yi euh, doom gis nga bu njëkk sax mag ñi dañ daan wax ne doom ju jigéen ku ko yàlla am nattuloo boo ko boo ci amee ñaar wala ñett foo seen ñuy teg euh, séddale gàcce wala kii mën ngaa dem teggi ci sab cër sab nar waaye loolu bokkut ak li sunu boroom wax yonent bi salaa salaam wax yonent bi salaa salaam dafa wax ne képp koo xamante ni yar nga am nga ñaari doom yu jigéen wala ñett nga yar leen ba dugal leen ci néegub sëy yàlla dalay ubbil àjjana yi ne la seetal ban nga ci bëgg a dugg nga dugg ci doom kenn du ko puukarewoo doom kenn du ko puukarewoo buñ koy puukarewoo boog sax bala nga koo puukarewoo nanga ko yar dañuy wax ne ñan ñooy ay jirim jirim du ko ñàkk ndey du ko ñàkk bàyyi waaye jirim mooy kan mooy ku nu yarul ku nu defarul moo tax boo mësaana nuyu ku baax ke du la laaj ku la jur ku la yar moo tax nanu itte woo yar yàlla bu la wërsëgalee doom wërsëg woowu daf laa am lu mu teg ndax ñu mel nii nga xam ne daanaka dañuy wax ne benn femme la ñuy am benn gardien benn ñaari doom walla deux fils sëñ bi jàppul boo boo leen laajee lii ngeen organiser ñu ne dañuy bañ ñu dépassé na ba duñ leen mën a yar dañuy bañ tamit ñu am problème du leen mën a dundal euh, loolu nga xam ne ci leen concentré wu jël tubaab yi di ko imiter ba tey ñu ngi nii yu mel nii di leen dal dal ñu baax ni seeni doom bu ne yonante bi yonantu yàlla noo dal na ko doomam yooyu de kii mais nag ñoom danoo jëloon waxtu yàlla sunu classe gi seeni doom ñu def leen baadoo la ñu def leen ay baadoo la ba amuñu fuñ leen bàyyi xel ci dara jël seeni doom seen bopp teg ko ci suñu kaw jël seeni doom teg ko ci suñuy doom luwaa yi nga xam ne moo fi am sax ku ci sa doom def dara boo luwaa yooyu day mel ni dalaa concerné wut wala concerné wut sa kii eh, am na ko Pape Diop at yële ca ginnaaw dégluwoon doomam ñu ne jël na nangami million ci këram nangami million ba Ngom déggu leen ci yu mel noonu keneen keneen nu mu tuddati Maymuna Mariama Sarr mi wala Mariama Badiane yi nekkoon ministère bi euh, doomam amu fi lu mu fi defoon ñu koy coow ñaari fan ñett jeexul anaa doomi nu mu tuddati eh, yaafaatu mii wala ndaw Ahmed xalifa ñas doomam dégg nu ñu ne am na dawal fi oto ba rey fa nit génnul ah, yooyu yëpp tey baadoole yu neewa ndaw ñu ngi ci kaso bi di dund loo xamante ni yii nag dafay mel ni ay ay nattu bu moo waxee ne moo tax ma ne la yàlla bu la joxee doom am na ci boo xam dala koo fay am boo dala koo gëne am buum la nattoo ndax tamit doomi jàmbur yi ni nga leen di traité surtout politiciens yi ñaata nit ñooy daw doomi jàmbur ñoo daan daw di ko topp di ko supporter di nekk ci ginnaawam tey bi mu demee li mu recevoir ak li mu am lépp mi ngi ko concerné ay doomam te doomi jàmbur ñoo doon daw di ko topp ñettaay ñi tëj nañ leen ci kaso ñi gaañu nañ ci ñi def nañ Touba gi 2019 lan la fi xale yi daj lu nekk daj nañ ko fi laa wax sëñ bi. lu ne daj nañ ko fi ngir di ko supporter ngir di gi kii bi mu demee ba àgg ci Macky Sall dem fa sax faale tuut ñu xale yu Touba yi amul dara lan la fi di defal ci xale yu Touba yi loo mën a wax ak yeneen i xale ak yeneen xale ila axri yi tey yu mel nii bi fi xale yi di wër mbënd mi di dee ndax yëkkati na fi kàddoom bi fi xale yi deux mille vingt et bi nu fi jógee di jàpp Ousmane nga xale yi génn lu mu wax na Ousmane nga wax ne jéggal naa dem wax xale yi ñu toogi ma sog te booba xale yi ñu ngi xeex ngir seen droit ngir bëgg am liberté moom boo fu doomam ne mu naa a wax a wax ne xale yi nan dem toogi bu ko defee ma wax Macky Sall mu bàyyi ko yu mel nii nag dafa doon yoo xamante ni yu kiimaane la day am ci réew mi ay leçon la nag àdduna nag feek yaa ngi fi nekk rek na ngay bàyyi xel yu bare bare bare bi muy def fii comédien naa man palis nangam ñu ne Ousmane Songalam doon def ñu ne ko coppet tey anamu mi ngi nii ne na ko coppet yóbbuwun ko loolu la wax dana anamu tey dana dig ne la coppet tey ana coppet jooju tey coppet jooju bu xoolee woon Ousmane Sonko comme sëram wala doomam dina ko théâtre noonu dina ko comédien noonu dina ko comédien noonu fii invité nañ ko bu yàggul ci télévision Futurs Médias idi ci koor gi lan ngay xadde bañ a dugub bañ dugub di def benn comédien boo xam ne kenn xamul nu mu toll nit ki boo xasee doon kàllaf ak nangam da ngay jàppe ñëpp say doom lan da jàppe ñëpp sam sa sër bu ko defee loolu lan ci doon wax yàlla na ko fi yàlla jëlee loolu nag taxul ne euh, moom amul benn kii bu nu ko xamante waaye nag lii lépp day wane rek réew soo koy bëgg da ngay bëggaale waa réew ma waaye doo bëgg sa intérêt ngir sa sa bopp sa fils sa femme sa benn xaj déedéet téye message beneen bi ñu koy jeexale ngir kii bi jeex mooy kii di mbëru làmb mi di Lac de Guiers numéro 2 xanaa moo war a doon numéro un sax naaw gis ngeen ko moom it natt bi ko dal gis nga euh, Lac de moom dafa mel ni lim sarwi ci làmb sax bariwul bariwul koo xamante nii nangu woon a def lii day fane wane rek xañ na lii moo def ak moo deful day wane rek ñàkkoon gi nga xam ne ñàkkoon na ko encourage su bopp moom mbëri yi ci bare bari daanaka dafay xool gi taxul ñu ñu ñu gëm Gris ba ñu gëm Lac de Guiers numéro 2 ndax parce que ni muy nanguut a bëre nanguut ci ci wàllu li nga xam ne moom lañ koy jox xaalis du neexal làmm te nit ñi daan def di ko kii yow en tant que koo xamante ni mbër nga di fayee ko nangam ay millions ay xale yu ndaw bëgg a jaar ci yow def benn escalier pour jaar ci yow pour mën a tekki te loolu doonoon sa warugar nga waroon li nga am nga koy partagé xale yi. ngay dem di jël loo xamante ni xale yi ñoo ko moom nga jëlaat ko ba tey nga nekk ci lu mel nii maa ngi dégg Baye Assane mu xoromu mi naa <laughs> nan ko yóbbul bu amee ko moo ko Reug ko defee ñu jël xaalis ba fay ci xale yi la ca des ñu kii loolu man yaakaar naa carrière jeex na moom nan lay futtikoo di bëreeti ban la ko mën a def xam nga bëree dafa am ay supporters lan la ko supporters yi kam yi jàkkaarlool di wax xaalis xaalisu jàmbur yi yow mi fi jëloon nag nga xam ne day complexe ba. bu doon mbër mu mën a daan sax du ko mën a daan bu duggee ci géew te moom ku nekk xam na ne Yaxya mii fi nekkoon di daan nit ñi nekkoon roi de Sénégal moom moo ko daan moo ko daan loolu rek doy na nag du caaga ne da ciy wut xaalis wala saw tur da koy utiliser aw tur yàllaa la koy jox te am na ñu mu ko joxoon seetal ñi gën a tedd ñam ko joxoon fan jaarale woon seeni tur nga jaarale fa lan nga bàyyi yan avantage nga def ñan nga defal ay ñi ñaata nit a yéeg ci yow ba tey ñu tekki waaw jàpp naa ne kuy bëre ku nekk yàlla may law tur may la kii nga mën a xëy di gagné million nit mën a liggéey at ba at mi jeex bu calculé ni lim ci am benn million sax du ko mat kuy garder ñu lay fay soixante mille wala ngay garder ñu lay fay nu mu tuddati ngay mbindaanu ñu lay fay euh, quarante mille ak yu mel noonu yow nga dikk ni léegi nag mi ngi li muy wane nii ak na mbëri yi solidarité fay fay xale yi seen xale bu fekkee ne lu am la nan solidarité fay ko mais góob ne dina am wala boog kenn ko koy la yëpp day wane ne ñoom seeni intérêt moo bi beneen bi ci desaat mooy ñoom ñi nañu xam ne ku am aw tur da ngay moytu da moytu li nga amit dalaa war a doy koo xamante ni lu mu néew ne am nga kër am nga oto booy dawal am nga loo denc ca banque ba loolu dalaa war a doy loo sëñ bi dalaa war a doy nga seet neneen noo kii buntu boobu du buntu boo xam dafa doon buntu boo xam sax buntu dansé la tey ñi nga xam ne ñoo doon business ci turu Macky Sall ci gouvernement Macky Sall te business ba jotut woon a sotti nit ñi leen joxoon seen xaalis tey ñu ci bari ñu ngi tiit tiit ci kanam tuuti fan yii nu jëm ci kanam nga dégg ñu bari ay pelante dal seen kaw yow sama sama sama port bi sama kii bi yaa ne woon mën nga ko lijjanti sama terrain bi yaa ne woon mën nga ko lijjanti joxoon naa la ca nàngam kay joxoon naa la nàngam. tey nguur ga daanu nu mënatoo koo lijjanti léegi nooy def da ngay fay sutura soosu bu la ko yàlla dee de boo dee dund ci turu jàmbur wala ci mbirum jàmbur wala ci dara boo ci dundee tuuti lu yem da ngay regg mais nit koo xamante ni faawu ñu xëcc sa loxo faawu ñu yëkkati sa loxo. Eh, ñu ngi koy ñaanal moom it natt bi yal na ko suñu borom teggi waaye yii nag buñ ci dut waaraate di ci waxtaan ni dañuy jàpp na rek lu kii la du mbir muy solution du solution solution ci benn mbir